mayatub galan rakk junjum ku gëm sëriñ bamba day wax boroog seen nagam dalal safar suñu mbigte taafeere waay weeru jàmm dalal safar suñu mbigte taafeere waay weeru jàmm weeru tiraange wi naatal suñu ruuyi ak suñu jëmmu weer wi defar suñu biir ak suñ bitti ñëpp la nammu murit yaa ngi bellee kelellee kebek xol yaa ngi lay tatagal tay xalaat yi xel yaa ngi yëmmu xol yaa ngi lay tatagal tay xalaat yi xel yaa yaa ngi yem xaal yaa ngi yéeg ak a yokk yëg-yëg yi nëbbu di mam mu muñ maare jooy jaayu reetaan jungaa mu mbig lañu tàmm 18 safar lañu dëgmal luy yëngu tee mu ne nemm 18 safar lañu dëgmal luy yëngu tee mu ne nemm waajal bisub kafa tuuba kuy wàcc sa bis na nga fomm waaj leen ko waaj leen ko ayca waajtaay wañor nañu xomm waaj leen ko comme ni ko sëñ bi diglee taxaw ca ni temm cheikh muntaxab nu bashiru xiblab ku jom mi ba dëgmu nee na ñu def suñu yitte njàngum quran di ko sàmm ku man na def ñetti kaamil jagleel ko sëñ biinu ràmm durus xasida yi sax ca jëmbis ba bañ toog ne mu ku baat ba neex di ko riime may noos ca boobale rythme yokata fonkati tuba samad ba xaddu fa dam luñ bandef fofa ñu def ko bañ def lu tax ñu ñi femmu ñu soppi xar kana mamba ci set setal ba mu kalmu mbalit ma luy tak tak tata yi ngi sa ñuy dalal gani maggal day ame taar ame jëmmu ndokkeele wat bépp jullit ñaan yalla fekke ci jamm talman ba sa fi xéewal suñ xel yi gën di fi nàmm ma julli selmal ci benn fanu safar gi te xatmu mamba dawe su ay jimbe bilang ko koy tarjamal gandire re imbiram